nañu nag ab plateforme en ligne boo xam ne rek dañ ciy gunge ñii di ndaw ñi bu ko defee ñu mën a demal seen bopp ci wàllu xëy mi mu fekk jamono joojee Le Soleil yëglekaay daal di xamle nag ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay candidat nag déposé nañu seeni dossier ca conseil constitutionnel lu jëm nag ci pré campagne bekk campagne bi soxal élection présidentielle yi daañu ko door juróomi fan ci weeru janvier ba ñeenti fan ci weeru février bu ñu sukkandikoo ci waa général waaye nag li ñu mën a jàpp ci lu soxal procédure bi nga xam ne rek ñu ngi koy doxal jamono ji ngir delloowaat liste électorale yi agent judiciaire bu état bi nag dem na ca cour suprême yëf yaa ngay bëgg sérieuse loolee nag la enquête yëglekaay daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ginnaaw bi ñu nee nag ndar képp nañu nag seeni bunt ñoom waa conseil constitutionnel mu soxal nag dépôt yi nga xam ne candidature yi doon nañ ko déposé ni ki démb yéenekaay bi ne lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci ay candidat yu jot a déclaré juróom-benn fukk rek ñoom ñoo déposé seenub candidature foofee ca conseil constitutionnel lu toll itam nag ci juróom-ñaar fukk tamit caution ca caisse de dépôt et de consignation lépp nag bu ñu ko xaymaa mu war a toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar yéenekaay bi ne jamono jii kay lu jëm ci calendrier bi nga xam ne rek moo soxal saytu gi ñeel publication list yi nag doon na loo xam ne nag jur nay jiixi jaaxa rawatina nag lu jëm ci wàllu parrainage bi lu mu ci mënti doon na Sud Quotidien nag ma ngay dellu siwaat ci dépôt yi nga xam ne rek amal nañu ko jëm ci candidature yi mu ndar képp nañu ko nag juróom-ñaari charge yi ñoom ñoo des ci liggéey bi juróom-ñaar fukki dossier yoo xam ne rek war nañu koo càmbar ñu déposé ko démb ca conseil constitution constitutionnel Vox Populi nag di ñu xamal ne daal jamono ji nag tirage au sort bi daañu ko amal niki ëllëg alxamis bu fukki waxtu ci suba jotee ngir xam nag ñan ñooy jàll ci yële candidat xam bi ne nag matukaay yi nga xam ne daal teg nañu ko bokk na rek ci bëgg faagaagal yenn ci ay politiciens waaye nag ma ngay xam ne ne état bi moom ak lu mu ca mënti doon mënee su la bañ a jëfee dogal yi nga xam ne rek moo tukkee ci wàllu yoon Le Quotidien yëglekaay nag di dellu siwaat ci li ñu war a dugalaat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi ni waa AJ e jamono ji nag cour suprême la ñu daal di yóbbu àtte bi mu fas yéenee sëgg nag ci leeral diggante état bu Sénégal ak kii di Ousmane Sonko ci biir yëglekaay bi professeur Sidi Alpha Ndiaye ma ngay xam ne ne Ousmane Sonko dafa war bokk nag ci élection yi ndax amut lenn lu ko gàllankoor donte ni nag jotul fiche de parenage jotul attestation de caution waaye nag faute bi du ci moom le sort des grands loolee nag la bés bi yëglekaay daal di xëy fasal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di dellu siwaat ci ñi nga xam ne nag mën nañoo jàll ci yile élection ak ñi nga xam ne itam nag mën nañoo am conséquence ci parrainage parlementaire yi laas yëglekaay ne fi mu toll nii nag candidat yi nag saasi rek la ñuy déglu ginnaaw bi ñu ndar keppee yi jëm ci candidature yi soxal présidentielle yi Walf Quotidien moom séq ak waxtaan ak Thierno Alassane Sall dib candidat à présidentielle moom nag li mu gis rek bokk na ci ay élection moom kenn mënu ko sàcc fii ci mim réew waaye nag yër leen yëglekaay bi wàllu tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak réew mi sport yéenekaay bi di dellu siwaat nag ci absence